ñetteelu édition yaatal mbindum alxuraan c di ko amal at mu jot at mi nag ñu duddee ko jëmm ju ràññeeku ràññeeku lool si yoonu murit bari xam-xam kenn dootu ko nattable si biir réew mi sëriñ as jaxate bi nga xam ne sëriñ fàllu mbàkke inauguré na jumaay Tuuba la ko fa teg muy jàngale xam-xam ba jamono ji moo nga fa sëriñ As Jaxate moom la ñu jagleel ñetteelu édition bi nga xam ni moo di concours yaatal mbindum alxuraan at mu jot it ñu koy jagleel borom xam-xam tey jii ki ñu ko jagleel dëkk bu sell bi di Touba ràññeeku na fi lool turam dëgg sëñ El Hadj Jaxate ñu gën ko xam sëriñ As Jaxate kilifa yu bëri jàll nañ si ay loxoom si dëkk bu sell bi di Touba. depuis boobu ko sëriñ lu joxe ndigal ci 1963 ba nëgëni mu nekk fii mbooloo mu dul jeex jaar ci ay loxoom. kooku lépp luñ ko defal ci taranga ci diine ci xam-xam ci alxuraan yeyoo na ko yeyoo na lu ko ëpp asubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwata illa billahi al ali azim damay sant yàlla bu baax di sant it sëriñ Touba di sant sëñ Muntaqa Mbakke bi nga xam ne moo fi nekk sëñ Touba njëkk bi ma daataa dem nag ci ki nga xamee ne moo yooyu cant ci man ndax bu dul woon moom kenn du ma xam muy sëñ Fadilu Mbàkke ndax dëkk bii kat boroomi xam-xam rek a fi nekk bi may jël di ma samp fii ci boppam maanaam booba la ñi ma jàngal ñëpp ñu ngi ca dëkk bi kon nag léegi am na lu mu gisoon ci man loo xam ne lii xalaat ku leen loolaatee ma bon. man dama fee teew teewal fi ñi nga xam ni ñoom laa bokkaloon nekk ci kër gi sëriñ Fadilu indi woon nu fi jox nu sëñ Alaaj Jaxate mii. nekkoon ci ronuk sëñ am sëtu jaxate mi nga xam ne moom mooy lépp sëriñ Touba man la fa jëkk yóbbu bam ma fa yóbboo ma am fa ñaari at teguma bët ba ñetteel ba sëriñ Alaaji bàyyi ma ma dem màggali ca kër ga dem nuy ji sëriñ bi ba ma demee ba waxtu dellu jot sëriñ bi laaj ma jàppoon ni maa nga maa nga mbaakol fa daan yóbbu ñi daan yóbbu samay kilifa daal ni ah waaye moom kat fàtte woon naa ni fii laa ko fii laa ko yóbbu kër kër sëñ as jaxate laa ko joxoon kër sëñ am sëtu daal ni man ndeke am naa mbaakool ci dëkk bi ñaari at a ngi ni gis teguma teguma teguma la bët dootuma yóbbu kenn mbaakool am naa mbaakool ci dëkk bi ginnaaw dama fekke woon yàlla damaa may ma fekke bi sëñ bi tàmbali fii jàngale alxuraan 1963 jàngale xam-xam fii sëñ Fallou jox ko ci ndigal ma bokkoon ci ñi ca njëkkoon ñëw fi di jàng ci moom ànd ak moom di ñëw fii ci barab bii te booba man damay door a dal jàng xam-xam soreegu ma ma di ko ànd ak moom ba yàlla dimbale ma am xam as lëf di ànd ak moom di ñëw su jàngalee nit ma diglu ko boole ma moom ma diglu ko ba tey jii maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. yàlla dogal ci wàllu njàngu xam-xam mm, ki ma jëkk ne xaala wax na lay fiir mooy sëñ as jaxate eh, nu jàng ci moom it nag jàng ba. àgg ci loo xam ne manees na ko jàppe eh, dañ ak réer sëriñ As Jaxate dafa doon koo xam ne yàlla may na ko mën naa ci tudd yaari mbir menn mbir mi mooy sax gi nga xam ne sax na ko ci liggéey bi mu nekk ndax boo seetloo ubbiteeg jumaay Touba 1963 yàlla defal la tawfiq nga tàmbali di jàngale ba ci suñ jamono jii nu nekk di 2020 Eh, nga nekk di jàngale ci jotaay ba nga doon jàngale te ku la xam ku nekk xam na ne tukki eh, bu jàmp bu mun mënta ñàkk képp moo mën a tax eh, waxtu jàngale jot te nekk ko ci jàngale béréb boobee nga xam ne fa ngay jàngale am xam biñ ko ràññee sëriñ as jaxate ku ko tudd di nga xam ne askan wu màgg la bokk mu doon cosaan loo xam ne mënees na ko ndamoo waaye tamit mënees naa dellu si yooyu la taarix may seere ci moom nag damay jëkk xam xamle mooy kan te moom kay doonul sax ku ñu umpule waaye xëy na tuut tànk yi du ñu xam mooy kan alxaaji mbàkki jaxate ñi ngi ko tudde sëriñ mbàkki buso moo tax am ñu naa ko sëriñ mbàkki jaxate am ñu naa ko alxaaji mbàkki jaxate am ñu naa ko sëriñ aas jaxate woy juróom wu góor mooy sëriñ xamsatu jaxate sëriñ xamsatu jaxate nag ku ñépp xam la ndax mag ñi àndoon ak sëriñ bi ca la bokk. moom nag nit la koo xam ne léppam Touba la léppam sëriñ Touba la. waaye soxna Awa Boussa mi way juram bu jigéen nit doomi Cheikh Omar Boussa la mi bokk ak Alhaji Mbacke Boussa ndey ak baay Alhaji Mbacke Boussa mi nga xam ne moom lañ ko tuddee moom sëriñ Asmi ñii niti xam-xam niti diine niti njub kon diggante njaxate ak Mbacke Mbusoobe waaye soxna Fat Silla Libaas mi nga xam ne moo jur soxna Awa Bousso way juram xam nañ ko moo doon way jur Sidi Mouhamad Abdoul Khadir moom Serigne Touba ak soxna Mominatu ibntu Cheikhul Khadim nga xam ne soxna Awa way juram ak soxna Momi ñoo bokk benn ndey fii ci Touba it la defee lépp way juram am Amsatu ak magam Serigne Cheikh Diakhaté ñoo ko jàngal alxuraan karim ba mokkal ko bind ay kaamil yu bari way juram moo ko tàmbali jàng xam-xam. waaye mu jaar ci ay kàngam yoo xam ne seen mbaax seen jub seen xam-xam ràññu ko ne bokk na ci nijaayam alxaaji sëriñ Buso mi nekkoon ilimaane jumaay Tuubaa ji te bokkoon ci ñu doon jàngale fii ci daara ji bokk na ci ñi xam ne jàng na ci ñoom sëriñ Mahmoud Diop doomi sëriñ Cheikh Diop Dagana nga xam ne elmu tajwiid ci moom la ko jànge bokk na ci ñi jàng ci ñoom nijaayam sëriñ Muxtaar Buso moom soxna Fat Ñang nga xam ne doomi sëriñ Masamba Kanne ñu xam am xam làkku arab xamuñ ci réew mi ku gën a ku gën a jekku bokk na ci Cheikh Mamadou Abdoulaye Al Alawi yi nga xam ne naaru gànnaar la woon daan na jëriñu ci moom waaye yi bàyyi sëriñ Cheikh Sey imam mu nekkoon dàkkee dara xudóos di borom xam bu ràññi ko sëriñ as si ñooñu la jàngi xam-xam geneen gi ci des euh, ci loo xam ne ak may lañ ko jàppe gu wér a wér moo di euh, ñi fa jaar ñi jaar Eh, ci jàngukaayu daarul maariful islaam yi nga xam ne noona la ko tuddee boo doon lim ci Touba tey ci ay mag wala ay eh, ndaw ñoo xam ne dañ leen di tudd di tudd xam-xam ku la doon wax ne damaa bëggoon nga limal ma ñi jaaroon ci as jaxate da daan ko la gën a yomb mooy lim ña fa jaarut lim ña fa jaarut moo gën a yomb lim ña fa jaar kon loola lim lay woon mooy ña jaar bari na lool leneen li ci des te aju ci boobu yi mooy qualité yi nga xam ne mooy ña fa jaar ak la leen yàlla may ci xam-xam. xam-xam ak alxuraan la boole woon di ko jàngale moom Serigne Ass Diakhaté doon lu jafe loo xam ne yombul si ab jàngalekat dëgg faw nga am fasaaxa waaye tamit am pédagogie bu mat sëkk ngir man koo yaatal loolu waral nag ay kilifa yu bëri jaar nañu si loxoom. yàlla defal ko tawféex nag bi mu jàngee ba noppi it ndonoy ay waajuram ndonoy sëriñam gënaloon Serigne Touba mooy nekk Touba di jàngale alxuraan li ko gënoon a li mu gënoon bëgg ci àdduna mooy dëkk Touba di jàngale alxuraan sëriñ As mi ne yàlla defal na ko tawféex Touba la léppee waaye fi la des di jàngale alxuraan boole nag loo xam ne néew nañu ko boole jàngale alxuraan xam-xam li gën a bari nit ñi dañuy doon sëriñ daara di jàngale alxuraan ñii di jàngale xam-xam moom nag ñaari wet yëpp la mane te ràññee ko ci. boo ko fa luy jox liggéey bi fii maa ngi fi woon lu jiitu loolu it moo ma dalaloon alxuraan biir këram laa nekkoon ba ma fay door dem sax maa moom tëdd ci benn lal waaw xam nga loolu mu ne su ko weesu maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko seereel mbooloo mépp waaye njàngum xam-xam it bu ñu ko waxee ci jamono yooyu daa am loo xam ne moom moo ko wéetoo woon itam ndax noonu ci biir Touba la nekkoon jàngukaay yëpp it nag dan fa daan dem waaye sëñ As ni mu doon jàngalee téere yu jëkk yi nga xam ne moom la mag ñi tudde téere yu xonq yi noonu la doon jàngee itam jàngalee téere yu weex yi ba ci téere astre yi nga xam ne téere école la ay mathématique ak ay euh, taarix ak géographique lépp loo xam ne xeeti téere la <coughs> yoo xam ne dañ koy jàng ci école yi ak université yi arab yi booba ay nit a ngi toog di ko tëral ci kanamam te booba nag wax dëgg yàlla kenn ku koy jàngale mu ci seesu ko. mooy daaray xam-xam yi nga xam ne fii laa ko fii laa fii laa jànge man fii sëñ Abdul Xaadir Mbàkke radiyallaahu anhu moo boole woon ak sëñ As ba ma bindee ko ba andil ko ko la mu andi ci loxo muy daara joo xam ne li ma ci mën a seere mooy képp kuñ ci dugal nga yem ci loxo danga xam te la nga xam dana barkeel li jaar ci loxoom nag jànge ci ay loxoom alquran mbooloo lañ moo xam ne kenn mënu leen a lim waaye li ja jaar ci loxoom nag jàng ci moom xam-xam moom ñooñu moom xel xalaatul sax ne dañ leen xam wala dañ di lim. juróom-ñetti waxtu yi nga xam ne ci leen daan xëy si saa bu desee ay miir nga dégg dala muy ñëw noos njàng mu ci anam goo xam ne it ku ak ak ak ak teg teg ko ci yoon. am na nu dongo yu toogee ku ñëw. fa mu njëkk ka mu njëkk jàngal xam na ko ba mu jeex mu tàmbaliwaat. méthodologie bi mu jël. mooy kii jàng alxuraan balaa àgg ci bindu kaamil nañ ko jàngal xam-xam xam nga xam-xam boo ko dee jàng di firi ci ngay xamee xaraf xamin woow yi nga xam ne xam nga ne xaala jii firi wax na bokkul ak xaala joo xam ne ak xaala ki ki xàmmee loolu ci xaraf soxlawut ñi di ko defal ay boole yoo xam ne dañ naan ko xaala ja nekk biram sangam bokkul ak xaala ja nekk biram sangam xam na ko moo tax doo jaar ci boole yi waaye buy bind kaamil bi ginnaaw mokk na doo juum ci mbind bi parce fekk na li ñu tuddee dictée moom mën nga ko bu baax a lépp loolu jàngale nag xam-xami charia yi xam-xami làkki arab jox ko yitte jógoo xam ne da cee boole woon téere yi nga xam ne mag ñi bari dañu ko jàngale muy li ñuy tuddee téere ansariya nga xam ne dalay jàngal làkku jamono US yi daare sëriñ Mbàkke Jaxate de ku fa jaar nga yàgg fa nga bañ faa yàgg da nga xam ne daara ja suñu borom def na ca barke te feeñ na ci ñi jaar ci loxoom ndax daanaka ñi dëkk Tuubaa tey saytu wàllu xam-xam nga xam ne ñëpp xam nañu leen ñëpp ràññee nañu leen koo ca laaj mu ne la jaar naa ci jumaa ja ci daarul maarif al islaamiya ci alxaaji Mbàkke jaxate te it yàlla dogal it ma bokk ci ñim njëkk a dalal alxuraan max man moo ma dalal baasin ma nekk ak moom ba bind kaamil mu jàngal ma xam-xam ba yàlla may ma ci aslëf maa ngi ko ci sant yàlla maa ngi sant yàlla bu baax di ko sant. suñ kilifa gu tedd gii nga xam ne lépp lu nu am ci xam-xam moo nu ko may ni ko sëñ Cheikh bu sa waxee rek noonu laa koy waxee. foofa laa dalee baa foofu laa defee lépp xam-xam ak lépp fa laa ko jàngi awma beneen ostaas bu dul moom kenn mësuma tëral tëral ab téere ku moom kon noo koy sant di ko gërëm ndax masanaa dem ci sëñ Saliou boobu doonagul xalifa ma ne ko sëñ Saliou yow de nitu taax nga yaa nga dem kees yaa ngi dem Dakar yaa ngi dem eh, yëf faat yooyu daa bëgg nga dimbale ma ba ba bokk ci ñi gouvernement bi jël mu ne kon su yaakaar tas nun ñi nga xam ne dañ laa bëgg a denc ngir sunuy doom ak ñu nu ñor ci ñu yar leen ci lislaam ak ak yoonu murid yi ngay wuti xaalis mu ne duma ci dox duma ci wax duma ci jëf ca demen sama la sëñ Fallu samp bi ma nekk bi moo jiitu loolu kon nag man day day koo xam ne dañ maa tënk jatang ma nangu mooy ma yëngu ci lu loo xamee ni ci boppam mooy yëkkati lislaam kon bu lee bu nee xam naa xamuma dara fii ma toog boo ma fi toogee rek sëñ fooloo fi toog sëñ Tuubaa fi toog ak ñaan ko nangu la kon nag xamuma dara waaye maa ngi gën a sant yàlla dafa gën a fettal saa ngi la xasaay tey ñaan nag sëriñ bi bii nga xamee ne moom la yàlla xiir ci muy dem di ma tudd te bu du woon looloo di su ma xamee ni ñu ma xamee maa ngi ñaan ci dara gi sëriñam sañ sooy bu yàlla gën koo dimbale gën koo aar gën koo musal ci ñi nga xamee ne dañuy dox mbirum àddina rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ku bari xam-xam loolu nekk exemple si yoon wi nekk it exemple si lislaam di ko ñaanal suñu borom guddal aw fanaam wéral xam-xam bi wasaare ko si àdduna bi yëpp ba li nga xam ne moo di yéeneem si ñi mu tàggat si ay mu gis ko. waaye tamit ndam li nga xam ne moom la suñu boroom dikk boroom xam-xam mu am ko ndax ñépp am nañ ci rafet njort Serigne As Diakhaté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 mën a xam li